wëndaalu ñi ngi dox dañu ñu wax Macky Sall na atte lii ñu jàpp criminels yi ñun mënatuñu nalaw ci criminels yi di dox munuñu nekk plus de quatre-vingt-six doomu aadama yu ñu rey reyin gu ñaaw ay manifestant criminels yi leen rey ñi ngi dox ñoo ne ñun nanguñu loolu tey sénégalais dañu waroon dem attaquer ji assemblée nationale ne kenn du fi voté benn loi loolu mooy dëgg tey sénégalais yi tey marche boobu vers l' assemblée nationale laa waroon doon parce que nit mënula rey ba pare dem toog fenn di waxtaanee nan la mun a setale mbiram loolu sénégalais yi tey tey tey tey tey loolu peuple bu gore peuple bu dese ngor tuuti tuuti ngor tey dañoo war a nekk biir bunt place de la place de l' assemblée nationale di ko xeex di ko xeex di ko xeex c' est sax di toog naan dañuy voté loi boobu c' est très criminel c'est-à-dire la jaale lekk sa rongo ñu maam ñun waratuñu toll sax foo xam ne ñoom ñii am nañu fit di ñu yàpp bay toog biir assemblée nationale naan kaa la ñu voté amnistie pour effacer crime yi loolu warul yoon man xaw ma nag lan moo tax ñu yàpp ñu loolu moom je me demande lan moo tax ñun suñuy njiir yi yàpp ñu yàpp boo xam ne man ñun su problème bi su suñuy kanam la si suñuy doxalin la dañoo amul fulla wala dañoo amul fayda lan moo tax njiir yi def ñu xaj lii benn tubaab amul fit fit xoolal ñii xaw ma dañoo ëpp fulla xaw ma seen kanam yi benn tubaab amul fit njiitu tubaab di def lu mel nii. rey tubaab yi bu pare dem assemblée nationale naan day voté amnistie ñii am nañ fulla boo xam ne ñii nii taxu fi am nañ fulla boo xam ne kenn yabu leen xaw ma lan moo tax ñu ñàkk fayda ñoom ñun. xaw ma lan moo tax suñu kanam yi joxe kanamu ñàkk fayda ba njiit bu jóg rey ñu ba pare dem assemblée nationale day waat loolu dafa war a arrêté man xaw ma ñii lan lañ ñu ëpp ëppalee. dafa damay toog ak ñoom mais damay xam ne ñii ñii ñii lu ñu am amuma ko. ñii respecté nañ leen jox nañ leen cër ñii seen trido amul fitul rey leen ba pare ci ñoom naan day woote euh, euh, assemblée nationale pour amnistie amul Amérique amul France amul fenn ci ñun rek la am lan moo tax ñun suñu ñuulaay la wala wala suñu ñuulaay moo xeebu wala suñu couleur peau moo xeebu wala ñun ñoo ñàkk la c'est pas normal c'est pas normal luy dëgg man man am na lu ma naqari du ma neexa ah, moo tax bokkuma ci sax gars yi toog naan dañuy seetaan ay assemblée nationale naan ay Mame Diarra Fam nee na lii Modou Ndiaye na laa loolu dafa ñàkk fayda man nekkuma ci monde boobu mun naa nag bokk ak benn peuple boo xam ni dañ dañoo mujjee ñàkk fayda ñëpp yab leen mais man bokkuma ci peuple bu ñàq fayda comme ay jigéen bu kenn waxee dara nga ne merci bu kenn waxee dara nga ñëw benn bennal kañ la peuple bi mel noonu kañ la peuple bi nekk peuple de lamentation peuple boo xam ne dañuy toog kese luñ leen teg ñu tegoo ko toog biir ci ci mur de lamentation yi di jooy rek comme ay jigéen ay maam Diarra Fam nee na lii ay moodu Ndiaye xul la député nee na laa ay nangam nangam yow commentaire rek ko lu ma naqari neexuma bu ma toogee ci réew mi duma ma yëy du ma noppi di leen xool ngeen xam ne am naa lu ma metti trop te lu ma metti bu ma ko wanee ci saaga nday yu metti laa koy def moo tax su ma préféré muñ xam ni lii sama peuple ñoo ma ko mën a teg sama peuple ñoo ma mën a teg lu mel ma toog muñ ko te balaa maa jàppanteeg ñoom parce que man mënu ma nangu ay nit rey samay nit ba pare nekk biir assemblée nationale di ko waxtaanee daw ma xeexi ma nekk ci di commenté kii nee na lii kii nee na laa kee nee na lële man ma fayda boobu noonu ñax ñàkkuma fayda boobu heure bii waroon na fekk peuple bi nekk buntu assemblée nationale ni ñàppanteeg ñoom xam ne lii affaire peuple bi la. peuple bi la ñu rey seen doom peuple bi la ñu rey seen doom ay rey nu ñaaw bu doon rey nu rafet ay rey nu ñaaw a ñaaw a ñaaw. Macky mooy premier président buy tiire ci doomu aadama plus de quatre-vingt-six morts Ablaye Wade defu ko Ablaye Wade douze morts la fi bàyyi ci bilan am Abdou Diouf dix morts et quelques la fi bàyyi ci bilan Senghor sept morts la fi bàyyi Macky Sall am quatre-vingt-six morts ak des disparus dama loolu doomu aadama bu dee ñun ay gor lañ waruñu seetaan sax ba ñii di dajaloo biir assemblée nationale naan day wax. mais comme ñàkk nañ fayda te mun nañ commenter te mun nañ benn bennal comme ay jigéen ci biir internet bii loolu moom moo tax ku ñu ñu xool yëpp ñu. c'est fois dans l'histoire Sénégal am plus de deux cent personnes yu bëgg a doon président loolu ku ci nekk ci yéen war ngaa mën a rus te xam ni yow yaa wane ñàkk fayda ba nit bu jóg bëgg la jiite. loolu ci ñàkk fayda la bokk dama ne kër caapa yaasin yaay ja doon caga góor gu nekk bugg na ñëw euh, seeg seen yaay mais kër goo xam ne même bu yaay ja doonee caga kër gi am fulla du góor gu neex dugg fa ñun nag war nañ xool sañu bopp buñ demee ba ci réew mi plus de deux cent personnes ku ci nekk golo gu jóg ne daf ñoo bëgg a jiite ça montre que ñun a ñàkk nañ fayda ñun wane nañ ñàkk fayda jigéen ci koñ bu am fulla bu góor bu nekkalee lay song jigéen bu nekk ci koñ plus de deux cent góor ku nekk bëgg la tëddee xam ngeen ni jigéen jooju caga la wala ñàkk na fayda wane nañ ñàkk fayda nag ñun peuple sénégalais bi wane nañ amatuñ fulla wane nañ amatuñ fayda ba ku mu neex yàpp ñëw ku mu neex jóg sa kër tekki woo fa dara bugg ñoo jiite ku mu neex jóg sa koñ tekki woo fa dara bugg ñoo jiite ñàkk nañ fa faj ba kum neex jóg di ñu dialoguel ba ku mu neex jóg dem naan da nga ñuy waxtaanal si ñun ñun ñun peuple bi war nañ am fulla nag fulla jot na fulla jaay Dakar ba a ñam jeexal ko peuple day am fulla peuple du nekk lépp lu mu lépp lu nekk rek ci wax rek la ko def ñu jàpp ko di ko foowee di ko pamte pamte yàpp nañ ñoo yàpp ba ku ñu gis bugg ñoo jiite yàpp nañ ñoo yàpp ba golo gu jóg ne kaay ma jiite leen yàpp nañ ñoo yàpp ba caga ju jóg ne kaay ma jiite leen affaire bi nag mi ngi bëgg a tuuru te lu ëpp tuuru te mi ngi bëgg a jéggi dayoo nit da ngay am fulla ak fayda man loolu laa gëm loolu laa gëm nit day am fulla ak fayda peuple yi nii dañoo am fulla ak fayda kenn yabu leen lan moo tax sama peuple nekk peuple bu ñëpp yàpp lan moo tax sama peuple nekk peuple boo xam ne ku ko xool bu ko jiite lan moo tax sama peuple nekk peuple boo xam ne seen taxawaay dëgërul ba nga xam ne comme neex dox dem assemblée nationale fooyee fa rey leen ba pare ne da koy voté ay loi amuñu lenn lu ñuy def au lieu de se rassembler dem devant à l' assemblée nationale pour protester pour manifester wu defuñu ko ñu ngi ci réseaux sociaux yi ku nekk di wax di yàbbi ku nekk nekk fanaan kii moo wax lii kii moo wax laa mel ni dara jotu leen dama ne doomu aadama yi dañuy dee ci deeyam gu ñaaw dama ne dañoo soxla. ñu leeral mbir yi criminels yi ñu jàpp leen arrêté leen le plus rapidement possible foofu la peuple lool la peuple bi réclamé ci loolu la peuple bi taxaw képp ku wax leneen yaa ngi mafia bakkan doomu aadama yi képp ku wax leneen yaa ngi foowee doomu aadama yi dama ne benn libération benn doomu aadama jarul bakkan bakkan dafa foor bakkan dafa foor amul nit bu bu ñu rey bu bu fi ñëwaat nit dina dugg kaso di génn ñuy dugg kaso di génn deewuñu dara jotu leen deewuñu ñoom ñëpp dugg nañ ci kaso bi mett na loolu injustice lañ leen teg mais génn nañ ñu ngi dox waaye ñu ñu rey bu dee ñun ñoo xeexal ñun jógul ci kaso bañ génn war nañ mën a xeexal ñu ñu rey pour ñoom tamit ñu àtte dama ne bu dee ñun ñoo xeex ba ñi nga xam ne ñoo duggoon ci kaso bi ñoo génn buñ ko continuer di xeex dinañ ko xaax ba ñi nga xam ne leen leen rey ñu atte leen ndax ñoo gën a metti la ah. bu ñu tëddee ba léegi jóguñu te ci ñun lañ bokk yéen ñëpp a gis policier bu ñëw wéeru ci ab oto oto bu yàqu nat di natt ñu naan lan lay natt ñu foog ne gibier lay nat ñu foog ne day rëbb ay pitax mu ne tëll bal ci ab xale bu am 14 ans mu ne bapp daal mu mel ni ku rey gibier di jubilé fomp ay loxam dem yoonam loolu lañ bëgg a àtte yu mel noonu la crime yu mel noonu lañ bëgg a àtte tey biir assemblée nationale benn mode de protestation peuple bi defu ko benn mode de révolte et d'indignation peuple bi defu ko gé matuñu fukk nit nit matuñu ko yu dem buntu assemblée nationale di protester éveil de conscience populaire bi des na bu doon fii la population bi danañ génn dem buntu assemblée nationale ndem sax du leen mus a dal mais bu doon fii la peuple bi tey jii ñu ngi buntu assemblée nationale yore seen drapeau noonu non non à l'amnistie defar ay drapeau defar ay banderole nan non à l'amnistie di xeex télé yi nekk fa lépp nekk fa éveil de conscience sénégalaise bi des na trop trop torop torop torop torop caaxaan bi bëri na foo bi bëri na kaf bi bëri na te bakkan dafa rot te bakkan dafa fort non à l'amnistie Macky Sall non à l'amnistie nous disons non à l'amnistie arrêtez ces criminels immédiatement et sans condition ñu mettre leen hors d'état de nuire Macky Sall le peuple loolu lay réclamer peuple bi nekk nañ ci benn marteau ak enclume entre le boo xam ne ñoom est-ce que sax ils se rendent compte de ça Macky dem def ay dialogue lu mu ko neex di fooyee sañuy institution di fooyee sañu constitution ba mu demee jox ko constitution bi conseil constitutionnel rejeté na lépp nee na ko sama waxu démb mooy sama waxu tey choisiral date avant le 2 ñu def ay élection loolu la ko conseil constitutionnel wax choisiral date avant le 2 ñu def suñuy élection li ñu bëgg lu Macky Sall la bëgg mënul am Karim Wade la bugg indiwaat te mënul ne conseil constitutionnel nee na du ko fi mën a sa nangu tànk mi ngi fi nee na du nangu Karim Wade génne na ko fa génne na ko fa dara ko fa dugalaat te ñoom Karim Wade rek moo leen tax a jóg seen intérêt crypto personnel moo leen tax a jóg amul leneen amul leneen le peuple avant tout la patrie avant tout arrêtez de sacrifier la patrie arrêtez seeni intérêt personnel na ngeen ko téye arrêtez la patrie avant les